loolu rek mooy li ci nekk. loolu rek nag moo ci mooy li ci nekk. la ca dolliku nag. la ca ko nag. muy bisub soññee. muy bisub soññee. ci ni ñu ko war a nun jàppe ci nun niñ ko war a jàppee. dañ cee war dañ cee war a soññ suñu bopp. dañ cee war a soññ suñu bopp. soññ soññ gu mat sëkk. soññ gu sëkk.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 fas yéene di taalibe nag fas yéene nag di taalibe nag rek. ci suñ lépp ci suñ lépp. di yéeneenti lu baax. di yéeneenti lu baax. ndax yéene yéene moo jiitu. ndax yéene moo jiitu. nu yéene lu baax. nu yéene lu baax. rawatina ko yéeneente. rawatina nag ñu di ko yéeneente ci sunu diggante. di bëgg lu baax. bëgg lu baax. te rek tax te yàlla rek tax.